waaw jërëjëf euh, Mamadou euh, par rapport ak sa première intervention mooy les tournées économiques mm-hmm. damay fàttali euh, askan wi que ni président Macky Sall ak gouvernement Amadou Ba 2 mm-hmm. ñoo fi nekk wala cinq février 2024 ngir doxal avril 25 25 avril bon, effectivement 3 avril hein. voilà. bon si je dis 25 février c'est jour de l'élection quoi de l'élection quoi. am. waaw non ñun ñaanuñu yàlla yegg deuxième tour ñu gagné li ñuy gagné. Ah, de ak yi bindoo jamono ji. Ah, am nañ ci yaakaar bu baax ndax xam naa ne. Mhm. coow li bëri na xëy na peut-être que mbir mi jaxasoo na mais ñi fi nekkoon doon votel Benno Bokk Yaakaar ñoo fi nekk ba tey. donc par rapport à mhm. le premier ministre Amadou Ba mënut a nekk le chef du gouvernement ba pare di tëdd këram di nelaw y a des économiques ñoom wax nañ ko jafe-jafe yi nekk ci àdduna bi. ñoo nekk Sénégal est-ce que li fi nekk sax gënul metti ndax àdduna bi fëppay méttandoo ñoo ngi wax naan courant bi cher na gox-goxaan yi foo dem ay jafe-jafe ñoo fay nekk hivernage bi ñuy jógee ak inondation yi yenn écoles yu ci bëri ubbeeguñu ak jafe-jafe yi. mais tey ye yelloo na premier ministre sol dàllam dem ci gox goxaan yi donte tournée économique lañ ko tuddee te ñenn ñi ñu sax ne tournée économique la mais ñu dem parce que kilifa dafa war euh, responsable. Mm-hmm. dafa war a jege askan wi. oui mais le responsable c'est c'est le président Macky Sall. les tournées c'est lui qui les faisait. waaw mais xam nga xam nga xam nga xam nga auparavant parce que sax nu mu leen wax ne président toog na benn instant amul premier ministre ba premier ministre donc la mu yenn woon lu ci ëpp da foog mu décharger wu nag aussi parce que à quoi sert le chef du gouvernement bu fekkee tey dafay nekk lu président def mu tàcc ko wala lu président di def rek mu taxaw ci ginnaaw lagar lagar di dem kon premier ministre mu fi njëriñ nañu waxante dëgg chef le chef du gouvernement tey jàpp naa ne sax la politique publique de l'État du Sénégal moom moo koy doxal rendre compte au président de la République te yenn jafe-jafe yenn projet yi taxaw parce que nag bu leen fàtte y a beaucoup de projets nga xam ne ci fin d'année bi dem ci début d'année bi lañ ko par exemple le BRT je je prends mm-hmm. décembre gii lañ ko waroon inauguré. donte événement yi fi xewoon. sama sunu sunu sunu gars yi toj nañ verre yaag yàq kii yeeg yenn kii yu bëri. mais teewul le projet connu jusqu'à présent man bi ma fi jaaree tey suba rek gis naa ñuy essayer des bus. Mm-hmm. donc tous ces grands projets on doit les livrer à date échue sinon suñu pertement ñun Sénégalais yi. loolu dama ci sàcc tuuti dellu si ci suma grand maya bi parce que nee na communication premier ministre baaxul parce que nee na la continuité bi mu wax waru ko wax parce que di fi nekk baaxul dama naan ko déedéet le président Macky Sall ñëpp xam na ne il a un bilan très très très très très reluisant mm-hmm. bu ñu waxantee dëgg kon nag loolu bu ko continuer wul lan lay def li fi président Macky Sall def boo fi toogoon di ko lim duñ fi jógee sama waa ji jong léegi am na ci yu ci bëri mu ci jaar. waaw bourse familiale bi nekkoon vingt cinq mille yóbbu ko trente cinq mille. ku la wax ne ba Amadou Ba ñëwee mënu ko yóbbu cinquante mille kon loolu continuité lay doon autoroute bii ñuy wax. démb. mais en disant qu'il va faire dans la continuité aussi il assume entièrement le bilan du président Macky Sall. mais c'est parce que le passif ak actif. mais bien sûr li ci lëndëm aussi bëri na. mais bien sûr non wax na ko sànq. reddition des comptes. non euh, mais yu bëri na mbir yoo xam ne tey. mais Mamadou Awa bu ñuy def bu ñuy def euh, bu ñuy balancer entre le passif et l'actif mais l'actif dépasse de loin le passif bu ñu waxantee dëgg. Mhm. donte nag effectivement ay doomu aadama lañ. njumte mun naa am rëcc-rëcc mun naa am nit mootul mun naa def nit mun naa def lenn la nga xam ne sax après xam na ne lii gënul woon mu jéem koo dam mhm. kooku dama koy nangu mais nag bu ñuy xool la balance li fi président Macky Sall liggéeyal Sénégalais yi président yi fi jaar yëpp kenn mosu ko fee liggéey donc loolu Amadou Ba. loolu sa perception la de. non du sama <laughs> perception. du sama perception xam nga ñun. Mm-hmm. dañoo nekk ay politiciens yi nga xam ne. tooguñu ci bureau climatisé yi di tëdd. dina ñooy nelaw léegi ñun. non ñun dañuy taal suñu oto chaque week-end dugg ci àll bi. Mm. di xool lu baax ak lu baaxul. on de des militants ya nga xam ne tey dañuy wax seen mébét ñu koy dégg di ko remonter ci kilifa yi donte mënuñoo jot ñëpp kon xam nañ li fi président Macky Sall liggéey moom ci exemple boobu laa doon ñëw démb. Mm-hmm. maa ngi fi jugee 17 heures passé doon dem Kër ma Madaaro di jaale ji benn dëj 17 heures passé 20 heures fii la ma fekkaat kooku bu ñu amul woon autoroute est-ce que ce